Voilà les autres Sénégal Info les listes de Lions contre Algérie publiées par. ñu il fait de leen koy aimer bu baax a baax gars yi ñu ngi leen di ziar bu baax a du ci Des bi di leen wax jumaa mubarak gars yi liñ doon xaar daanu na. liste bi nga xamante ne si moom la El Tactico muy lui c'est génne pour son jongante xaritoo bi nga xamante ne si war na dox suñ diggante Algérie fii ci stade Ablaye Wade liste bi gars yi gannaaw ba. yeneen ñaari sélectionneur yële génnee ñoom seen liste bopp contre Rwanda gars yi liste El Tactico bi mi ngi nii wala gars yi liste bi bëgg naa ngeen wax ma ci seen xalaat nan ngeen ko gisee portier yi défenseurs yi milieu terrain yi ba ci attaquant yi. wala gars yi jàpp leen ni portier yi ñett lañu sans Alfred Gomis wala gars yi bañ bii Mister Clean Sheet muy Edouard Mendy la seeni Timothy Dieng ak Mody Diaw ñu ñëw gars ci défense bi Dan fay am Formose Mendy. Youssouf sabali Kalidou Koulibaly Abdoulaye euh, Seck Abdou Diallo Moussa Ndiakhate Abdallah Ndour Ismaïla Jacobs Ndiakhate Ndiaye aussi tamit wala moom aussi tamit ñëw na moom Abdoulaye Ndiakhate Ndiaye gars yi aussi tamit mi ngi ci liste bi Abdallah nduur gars yi tamit moo ngi ci liste bi ñu ñoo nekk défenseurs yi bu dee gars yi milieu terrain yi comme ni ngeen koy gisee Idrissa Gana Gueye la Cheikhou Kouyaté Krépin Diatta gaay ci mille terrain yi lañ ko boole ah voilà euh, ki nga xamante ne si mooy Pape Matar mi ngi ci Lamine Camara ak John Lopy gars yi Lamine Camara ñëw na comme ni ngeen ko gisee voilà yéen ñi nga xam yéen a ngi ko doon laajte attaquant yi ñaancoo bi la muy Sadio Mané Ismaïla bu Boulaye Dia Iliman Ndiaye Habib Diallo ak Nicolas Jackson mu nekk gars yi match bi nga xam dañ koy joué muy match amical contre Algérie le 12 septembre à partir de 19h mi ngi noonu gars yi liste vingt vingt cinq jours moom la ñu El Tactico daal di jox gars yi nan ngeen ko gisee seen xalaat mën geen ko bind ci commentaire yi man koo wuti ndam li gars yi seen média TV la woy leen di abonné di aimé